jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox seen wàcc waaye di wax ne ñoo ngi ci émission mode bi nga xamante nii mooy jàmmaarloo mbokk yi su ma nee jàmmaarloo nag xel yi dina dem ci fans yi waaye su ma nee xel yi dina dem ci ñaari mbër yi nga xamante ni ñooy dugg ci digg géew bi tey nag jàmmaarloo bi dama fi dal la ñaari xale yoo xamante ni nii euh, ay xale yoo xamante ni làmb bàyyi na leen xel ay xale yoo xamante ni ndaanaan lañu ay xale yoo xamante ni ku ci nekk bi nga jóge arène nationale euh, félicitation lañ la wax ndax ka ngay bëyal am nga ndam ci kaw mu nekk xale yoo xamante ni sama droite maa ngi fi am ki nga xamante ni mooy Kaaw Godin mu nekk écurie Dalifort sama gauche maa ngi fi am ki mooy Boy Dakar nekk écurie Doudou léegi nag dama leen di bàyyi ñu nuyoo ñu doog a ci waxtaan wi Kaaw nuyu naa la. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim bu ñu sante yàlla di julli yonent bi di sant sunu ñaari waajur di sant sunu sëriñ sëñ Abib Si bi ma Abdou Aziz Si Dabaax di sant mondu làmba mhm. di sant rawatina waa Dalifor ak képp kuy bëggee Kaw Gourdin rek rawatina booy Dakar ñu ngi koy bëggee baay maa ngi lay ziar bu baax Ouzin di ziar waa wasaare làmb ñëpp. Mhm. fay la bu baax ba baax naka nga gisee euh, émission bi nga xamante ne mooy jàmmaarloo. waaw émission bi nekk na émission bi nga xamante ne wax dëgg koy suivre ah. Mhm. waaw parce que yaakaar naa avant ñuy commencé rek maa la ci doon wax dara. dëgg la yeah mais macha allah yal na ci yàlla def jàmm te gën koo yaatal quoi. Mhm. amiin Boy Dakar nuyu naa fay naa la Ouzin. gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur di ñaanal sama sëriñ euh, sëñ Babacar si yal na yàlla lu yokk leeram sama maam. Euh, di nuyu askanu làmb yëpp. Mhm. di nuyu ñu mu àndal ñi di nuyu suñu président ak Matar. Euh, Aïdara Mbacke Niass ak Matar euh, borom waalo borom NGV maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu sama yëpp bi bàyyiwuma kenn ku si mel ni Lamine Nar Aba ñoom Modou Kopi waaw bàyyiwuma kenn daal ñoom petit gars yëpp ñoom Modou Sagna waaw di brick plein maa ngi koy bëggee tamit bu baax a baax di siyaat gars yëpp daal bàyyiwuma kenn di nuyu sama euh, collègue bu ma toogal fii muy euh, Kaw Gourdin hmm. waaw di nuyu tamit caméraman yëpp waaw. sa nopp lu ko def nii. nopp contact bu métti rek. dafa am ku ma mos a wax nee na ma foo fekk nopp bu ndengeñ fa la ëpp lu muy bëree. Mm-hmm. foo fekk nopp amul dara fa lay nopp loolu am na. waaw seen gis-gis la ñuy wax. amaana benn benn côté am na ñoo xamante ne. Mm-hmm. dañoo nekk gauche ak droite. am na ñoo xamante ne comme Balla Gaye mu mu gauche ak droite lay bëree. Mm-hmm. man na droite la. loolu moo tax. ah kon li mu wax da koy dëggal ndax dafa mel ni foofu ngay ëpp looy dugal sa bopp. di di non non parce que temps ma di bëree côté bi moo tax. loolu mooy li may wax rek foofu nga noppaloo foofu kenn du fa noppalu. <laughs> amaana suñ fa ñëwee rek ñu defaat suñu ay ñelaju rek. Ah. waaw ay yee yee. <laughs> <laughs> gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo mooy li ma leen wax sa waxoon sànq. tey kaaw laa daje kaaw laa dalal fii ak euh, Boy Dakar ku leen xam ku nekk xam nañ ci bëri ndax ñoom ñaar ñi ñëpp. dañuy faral di wàcc ci lutte simple bi di bëre di ñëw ci lutte avec frappe bi di ci wane seeni preuve ndax kii di Kaw Gourdin yaakaar naa moo ngi ci 15 combats xaw ma 14 combats kii di euh, Boy Dakar yaakaar naa moo ci 12 combats. ñu nekk ay xale yoo xamante ni nii chaque jour dañuy wane seen preuve ci làmb dañuy saa bu ñëwee doo laajte ana mbër mi mais su ma ñëwee ci Kaw. Mhm. kañ nga dugg si ci làmb. waaw làmb maa ngi ci dugg fin 2014 2013. 2013 2014 laa ci laay def sama premier combat a ren quoi. mais ñu gis la euh, boo jógee waa Dalifort yëpp jóg. sa mhm. diggante yow ak ñoom lan la. waaw Ousseyn ñooñu dañ leen di sant rek parce que lépp lu ñu am rek dama ñëw sa yow ak 2 giga. Uh-huh. mais bi ma ñëwee bi ma gisee ni la mbooloo bi toppee dama ne kaaw fan la jëlee nit ñi ñëpp. dëgg sant yàlla rek man Dalifort laa juddoo fa laa yaroo fa laa màggee. ba nu ma doon ñi falaane mosuma nekk feneen kon tamit dañ leen di sant bu baax jox ñëpp ñi nga xamante ne lu ñu warloo danga leen koy jox. Mm-hmm. te noonu la ñuy doxee foofu muy Dalifort. Mm-hmm. sa diggante yow ak ñoom. waaw mooy mooy li ma la wax rek muy jàmm ji rek. jàmm ji moo ci ëpp ah, wax dëgg yàlla ak gis ni carrément kaaw bëgg na lu muy def. Mm-hmm. waaw parce que li may def bëgg naa ko de. nga ah, bu baax nag. <laughs> mais dama la gis. Euh, parce que damay tëb yu bari ndax temps bi duñu ko may. Mhm. dama la gis nga ñoo dugg ci tournoi bi. mais bi nga mhm. duggee ci tournoi bi tournoi bi taxawee. teewul nga wàccaat ci lit simple bi. Uh-huh. di ci reyante ba jour yaakaar naa bi ngeen def signature jour nga ñëwul mais yeneen mhm. journée yi am yëpp nekk lit la ngay obligé di wàcc tey ci ci arène bi. waaw dama ciy sant sunu père muy père Tombe moo ñu yor comme ni ma ko doon waxee rek. tey jii ba mu ne woon wàccaatal ci mbapat bi damay wàccaat ndigal bi rek laay xaar moo tax ba léegi ma sax. ndigal bi moom bu wàccee rek incha allah dañuy wàcc ci mbapat yi quoi. Hmm. Uh-huh. ndigal bu wàccee dañuy wàcc mbapat ma ñëw ci booy Dakar. booy Dakar ma gis la nga nekk xale boo xamante ni nii saa booy bëree li ngay bëree da nga ciy def fulaak fayda lan moo nga gis mba jàpp di fo mais yow yooyu yëpp fekku la ci. Uh, loolu moom yaakaar naa ne dañ ciy sant sama mbay fay Faye. Hmm. du ñu nuyu tamit sama papa Père waa suñu président du nuyu tamit coach Pek ñooñu ñëpp ñoo may tàggat. dañ may wax loolu ñu ne biir géew kenn du fa fo waaw amaana écrit soo fa nekkee ngay foo di def ay clé pour muy réussir. Hmm. mais soo xasee dem euh, si géew muy arène. Hmm. yaakaar naa ne war nga jox cër sa adversaire lépp loo leen waxat de si signature ak loo leen sax warul doon benn. comprendre hmm. mais moo tax suñu ñëwee dañuy jox suñu adversaire cër respecté lépp lu ñuy def am nañ tamit ñu nekk suñu gannaaw ñuy jàppale di jël seen alal di ko def si ñun ñoo xam ne dañuy sonn. kon ñooñu noonu waruñu nekk si géew di ñàkkal fayda même suñuy ñàkk sax nañ ñàkk si loo xamante ne fulla ak fayda la. Mhm. waaw loolu la ko kañ nga dugg ci làmb. làmb mu siy dugg ay 2010 moo laa commencé mbapat avant 2010 sax commencé naa bëri waaw mais may dem di dem di dem ba ay 2014 ma commencé dugg si arène waaw ba tey jii mais dafa mel ni kon ñuy ñaar rawante wu leen lu bari de. non non rawante parce que ñu ñëpp ay génération lañ. Mhm. waaw ñun comme lu mu wax léegi rek ñu ñoo war a daje si kaw ëllëg. non daje ci kaw bi dafa sooy balaa ngeen daje ci kaw foog ngeen kii fii tàqalikoo kii xaar kii dem. <laughs> non il foog ñu daje ci kaw il faut ñu daje ci kaw parce que lamb tey soo ko jëlee profité ko nii xam nga sax saaxe ko nii. mais am na ñu ne nekk ci kaw ndax moom bu defee quinze combats nga def douze combats. dafa mel ni treizième combat ak seizième combat am yéen du ko dàq. waaw lamb du ko dàq moom dafa dugg ci dafa dugg ci tournant. mais dafa jot a duggee ci bi. Mhm. am fa trois combats am fa booy bi bi waa Guédiawaye yaakaar na ma révélation bi ñëwee yaakaar naa du ko dóor ba mu tëddal boppam. waaw dëgg la mais instant nii jotagul te lu jot yomb. dafa jotagul da nga xeeb bi. man du ma xeeb doomu aadama. Gagou de xam na man xam naa ko. non man kay xam naa ne xamante ne jeex na day wàcc si lamb may wàcc si lamb ji. mën ngeen a tase. non mosuñoo tase. xam nga am na loo xam ne dafa jotagul daal su jotee rek yomb. mais est-ce que xam nga ni combat combat bi ko dàq. Hmm? bi ko dàq doo ma dugal. <laughs> ay non dama xam ne dama xam ne dawante bi ak moytonte bi. non moytonte wuñ de ñoo xamante ne nekk nañ ci kaw. waaw moytonte wuñ de xam ngeen ne bu ko bu ko moom dégg naa am na ku koy woo. fi mu doon adversaire la koy wutal. Oh. te xam naa ne yow moom bu ko woowee <laughs> ah <laughs> man tamit ñu ngi may utal adversaire. waaw yéen ñaa ñëpp mais leer na ma promoteur bu koy tëgg man bu kaw tëggu moo tax. loolu mooy mais sa mën na koo tëgg. non non saa yi nii jël jël yoonam ak promoteur ma jël sama yoonam sama promoteur bañ daje si kaw. kaaw kii da laa xeeb wala dafa bugg nan la ko mën parce que sa booy bëri naa kaaw a jël revanche ndax dafa daan sa booy non non man jëlewu ma kenn revanche mbër bu nekk dafa yoonam di liggéey yéenewu ma kenn defet nag mais mbër bu nekk dafa nga daan fii di bëgg démb loolu dinaa daan fi booy bii nga xam ma yéenewu kenn maanaam sama waa écrit foofu laay waxee parce que dafa daan sama booy moo loolu tax nga war parce que tey jii ni ku nekk dafa nekk sa yoon booy ma leen encouragé tamit làmb nii la waaw am na loo xamante ne waruñu nekk fi sax di ko xiiroo di ko ŋaayoo maag kaw Gourdin bis bu jotee danañ bëre te coow di jib te lamb bu neex lay dooni ëllëg. waaw waxal non Boy Dakar moo ci nekk de. lan la ma mooy lamb daf ñoo war a xaar ci kaw. mais nag lamb muñ leen xaar ci kaw yéen ñëpp. faaw am ngoo ñoo jëflanteel bi comme booy bi caat daaw dafaal doo ñu ko doo métti na lool sama xol bi. sama xol ki nga xamante Mm-hmm. moo ma mag. mosoo bëree ku la mag. samay morom rek laay bëreel. lu waral loolu. waaw parce que dama nekk xale. Mm-hmm. xam nga nag nit mu lay tàmm di la gis nii mun na jàpp ni mag nga wala leneen. Mm-hmm. mais boo ñëwoon sama kër ba gis samay frère wala sama rax danga naan déedéet kii kaaw mais làmb dañ ci am luñ ci def. dañ ci dañ ci xaw a yàgg te daam daam luñ soxla ci làmb parce que tey jii sa tur dina yegg fenn fi. te mhm. fekk doole bi yeggul foofu. te yaakaar bi day bari. Mhm. xam nga kon tamit dañu promoteur yi ñëw jàppale fay ñu tamit. Mhm. yaa dañ ñu fay bu ñu fayee rek dañuy bëri ak ku mënti doon muy muy booy Dakar keneen ak. mais man mais man am naa ci écho ne promoteur mu ngi dox sa combat. Mhm. dafa mel ni sax yow moom féete nga côté xaw na déggoo ak yow mais problème adversaire mooy mooy mooy problème bi mais sa diggante yow booy Dakar. tamit non non non. xam nga kenn doxul sama combat. déet. benn promoteur doxul sama combat. amul <laughs> mais ñoo ngi waxaale ak yow. man bu ma sañoon suba suba suba damay bëre maa ngi sama métier nag wax dëgg yàlla. bi ma la woowee démb dafa am ku ma woo mu ne ma ko booy Dakar eh, kii laa invité Kaaw Gourdin mu ne ma bul ko woo. bul ko woo bàyyil ba am taxaw sooy nañ ci moom bul ko woo di di xuloo man di wax man na ko nag kaaw moom dina ñëw suba xam luy xew waaye kaaw dina ñëw suba. waaw noonu la demee parce que xam nga rek Ouzin maanaam plateau bi waroon na am bu yàgg. Mm-hmm. xëy na nag sunu borom da koy doog dogal moo tax démb ba nga ma dama ne la amul benn problème. Mm-hmm. dinañ ko def ak koo mën ku koo mënoon invité damay ñëw toog. incha allah muy adversaire yu yuñ may wax ak yuñ ma waxul yëpp damay ñëw toog. xam naa ne moom ki ma doon topp ni dafa bëgg bëgg yow bu gisee lii dina ma mere man man loolu xam naa ko. waa jooju na xaar rek. gurdee bi gurdee bi dina ko dal de. léegi jarul muy mais waa ji nag dafa mer parce que ni nga def booyam def ko rakam xolam seddu ci benn yoon. non foofu moom kenn laa fa soxla. muy Alioune Sèye Junior. seen ikiri boobu ñoom. bëggoo bëggoo ki ma lay wax nii. xam naa ne xam nga ko sax nag xam nga naa bu baax te bañ dajee wax naa ko nee naa ko sax grand laa soxla. mais dama la gis nga dugg ci tournoi bi. Mhm. nga ci duggee sa premier combat coow li bay woon na. Mhm. sa premier combat coow li bay na trop. waaw coow li mënu woon ñaax parce que maam moom dañoo waroon tàggalikoo bu yàgg avant tournoi bi dañ doon dox combat bi. par tournoi bi ñëw sotteel ko. te ma jóge woon tam ci defet mm-hmm. mu métti torop mais tamit jóge naa ci defet mais terewul lépp lu ma war ci làmb dama koy def. mais la moo nga ñëw jour boobu lu toll noonu dugg ci nga ñëw daanu ba noppi duggaat ci tournoi bi. te combat boobu bi nga ñëwee ku la waxoon jour boobu da ngay daanu defe naa ne sa diggante yow moom leneen la ñuy wax. waaw làmb jooju mun naa wax ni moo ma def tey li ma doon de wax dëgg yàlla làmb jooju amul beneen làmb bu may seetaan budul boobu ba nii nii nii làmb jooju rek laay seetaan déedéet. yàlla xam na ko mais dama gëm ni carrément lu war a am la rek parce que deux Ziga champion la mun na daan keneen ak keneen yeah comme man tam mun naa daan keneen a keneen tournoi bi nag lu tam mu dugg ci mooy dama xam ni carrément li ma perte mun naa ko amaat ci tournoi bi ma liggéey ci lépp lu mu war nag ànd ceeg sama père muy père ak école de lutte Dalifort bi yëpp. mais li ñu ci tournoi boobu Thiat Daouda Fall kenn boolewu ko woon kenn calculé wu ko woon dañ ne kii moom moom tournoi waaw parce que dañuy jaawale lu bari muy ki nga xamante ne carrément li nekk ci moom yàllaa ko def Thiatou Daouda Fall doomu mbër la. Hmm. mais Thiatou Daouda Fall gënuñu doon champion li ñu fi def defu ko gënu ma ko doon parce que li ma def ci làmb defu ko mais doomu mbër bi day am lu mu te ñun du ñëwee doomu mbër. Mhm. dañ koo tarbiyu ci lu bari jaar fu nekk nag wax dëgg yàlla mbapat amul lu ma ci deful ba may nekk boy amul fu ma demul ci làmb dëkk boo dégg fii senegal dem naa fa làmb te ba mu fa demee damay jël ñibbisi mhm. dangay jël ñibbisi ma ñëw ci ki nga xamante ni nii mooy booy Dakar Boy Dakar dama ñëw sa combat sa diggante yow Tigo parce dama ñëw ñu Tigo ah di ko yaay. waaw du bëri ngeen. <laughs> xam ne <laughs> dama ci ñëw soo déggee li tax ma ci ñëw. Euh, Tigo dafi teg la ay victoire yu bari. Mm. ñëpp na waroo ko woon jël. mais nga ñëw jël ko. bëriloo ko ba ñu bëgg a dee consuloo ko combat bi. Mm-hmm. ba mu jeexal nga daan ko. waaw loolu dañ ci sant yàlla rek. Euh, di remercier encore tamit sama coach yi. Mm-hmm. parce que parce que man su ma signé combat moom mu ngi mel ni. waaw sama bakkan nga ma tegal nga ne te tey da koy récupérer wala doo ko récupérer. waaw moo tax sama sama sama sama combat dama si teg sama baxan waaw entraînement si lu wóor contact lu bari waaw. lan tax combat boobu yàggoon. waaw combat bu xam nga lu tax mu yàgg mooy euh, Tigo taxawul. nangul taxaw nangul taxaw te dafa yaakaaroon ne moom ëpp doole. Mhm. te demeewut noonu. loolu moo waral combat bi yàgg. mais dañ siy sant yàlla rek ba yàlla. mais nag yow da nga bëgg combat bu yàgg de ndax sa diggante gàkko tamit. Mm-hmm. keroog bi nga ñibbee sax bi ma la xoolee dam laa yërëm bëti mënul xool ni nga doon xoolee nii. <laughs> mais gàkko nag moom mi dem hôpital direct nag <laughs> mais dañ siy sant yàlla rek. waaw combat bu tamit mu si jógee si blessure bu méttee métti métti. avant combat bi wala après combat euh, bu ñu waxee combat bi des na vingt et un jours laa jël combat bi ma am si faar bu damm. xam nga ma bëri ko moo tax. mais xam nga yéen nag yéen yéen lii moo tax kenn mun leen respecté kenn mun leen parce que yéen naka ngeen ngeen na ngeen defee sport nga jàpp mu jàpp doo doo ci faa nga am blessure ci faa continuer da ngay dem làmb ji bëri ji. xam nga contrat jàmbur bëgg nga ko yàq. waaw ah, mais mais mais tamit boo blessé. waaw bu ma jour boobu noonu bu ma jëlee ko bu jëlee avance bi. Mhm. per Diakhaté dafa ma woo mu dem a ñibbisee fekk maa ngi Casamance foofu laa doon compétir. léegi bu ma ñibbisee maa ngi bëggoon wax sama coach mënut ma bëri mais yàlla def na ma am courage dem di entraînement. da nga bañ ñu ne da nga daw. waaw parce que am na yoo xamante ne yàq der dafa yomb. am na benn mbër bu fi nekkoon yàq sama der ne dama dama lekk avance am ba pare delloo avance kooku noonu tey jii suñu tegaloon milliard du ma bëri moom. bañ na ko sax ba waxoon sama defoo loolu loolu. non non jour boobu noonu maa ngi finalu àll ba après si lañ ma wax ma ko 2STV la ko waxee. xam nga loolu yëpp. non jëloon nga avancé wala jëwoon na. jëluma ko nu ku dem ku dem compétir kay yaakaar naa. jëloon mais sa ménageur mën nga ko jox xaalis sama ménageur ko wallaahi sama ménageur sax laalu ko xam nga après affaire demee noonu moo tax léegi. même su may blessé ban bër la non jarul koy wax. jarul ma ko dépasse yéen da ngeen gaaw ci xeet. non xeebu ma ko dafa respecté wul nit rek. loolu la parce que man dama toog di wax ay turam yooyu noonu xam nga loolu yëpp am ci moo tax adversaire blessure sax su ma ko amee damay sacrifier bu bëri lu ma am rek jël mais la moo tax combat am ngeen ñëw taxaw xeex nga téye sa bopp mu téye boppam lan la da nga doon bañ a daanu wala. waaw daanu moom kenn buggu muy mën a keneen ak keneen si kenn kenn kenn bëggul daanu. mais ngeen nekk ay ndaanaan bërëkkat sa diggante mm. ñëpp ne woon combat boobu moo nekk combat bi dàq ci combat mm. mais ngeen ñëw bëriw leen. taxaw di dóorante puusante génn dellusiwaat. man su ma su ma jàppante woon bu su ma jàppante ak moom yenn jàppante yi daanu naa bu yàgg. boo jàppante woon. waaw ndax lan. ndax sama yax yi nii la defoon. yàqu lan loxo walla fii nii nii la defoon moo tax su su ma su ma jàppante woon moom rek yàq yi day loolu moo tax loolu moo tax bëgguma woon jàppante yenn jàppante yi xam nga ne su ma nekkoon forme bu baax rek combat bi jeex na yàgg na waaw loolu moo waral ma taxaw di xeex rek may sànni sama loxo yi. ba yàlla waaw ba yàlla dogal li mu dogal mais dañuy sant yàlla mënuma ko nag mun moom tamit mënuma mais lamb moo demee noonu. mais yaakaar ngeen yi ñaar di ngeen bëriwaat ci kanam. moom tukki na moom bàyyi na lamb. ah non dafa dem entraîné ji. waaye kooku paa la kooku dootum <laughs> ah, du ñëwaat. d'accord lu ma ko won si <laughs> bëriwaat. <laughs> non dégg naa ne que maa maa ngi waxtaan ak kam ji ma dafa dem entraîné ji mais moom du ñëwaat maa la ko wax. Ah. sama waay la nag. mais nga jógee ci euh, ah. ñu ne la. Hmm. nu mu sax waay. sa sa sa mbër mi sa adversaire a fàtte naa tur bi caatu ngéwél caatu ngéwél fa jël ngéwél lu ne dégg ko euh, booy nan la nan booy nan la pas Dakar mhm. lu ne mu wax la ko sa yax yi daa fënax amatuloo doole lu ne dégg nga ko ci combat ba man damay toog waxtaan ak moom damay def moom vidéo def tàllal mi ko mu wax ma récupéré vidéo bi ah. envoyé la ko <laughs> <laughs> damay ree ba sonn wóor na yàlla parce que loolu rek si amoon quoi wax rek la si amoon. mais nag amoon na gëm-gëm ne foo taxaw mu fekk la. waaw amoon na gëm-gëm bi mais bu mu ñëwee ba si géew bi amatul gëm-gëm bi. lu tax loolu. amatu ko parce que moom bu ma summee ko xam na ne kii combat bi jaral na ko combat bi man maa jël sama décision kii su ma daanoon damay kii su ma daanoon beneen affaire la booy bi dafa bëri wax. te fii ba suba suñu tegoon paquetu tàngal du màcc benn. waaye nee na woon zone bi baaxul zone bi ba tane naa. sama sama zone méttiwul de mais moom nag mais moom nag dafa xamoon say secret sama zone méttiwul de. dama am fi benn xoos-xoos mu ngi nii léegi nag loolu laa su ma demee contact loolu moo tax wala may dem estat loolu moo tax may sonn genou wér pour bañ euh, euh, laa am blessure boobu loolu moo tax ma ko doon sol pour bañ ma daggaat mais aw ma genou léegi moom dafa gis ne carrément kii yax yi baaxatul moo tax muy takk genou. voilà mu ngi mu ngi si doon wax lu nekk ma ne mu ngi trompé boppam. waaw parce que occasion yi la amoon pour mu yaakaar ne man dama am blessure. mais nag combat bi dafa mel lépp dañu ci sant yàlla rek. di sant suñu coach Baye Gueye moom tamit entraîné ñu bu baax teg ñu si code waaw léegi may woo téléphone ñu ngi entraîné defal lii defal lii waaw ñu ngi koy remercier bu baax baax baax coach Baye Gueye ak Doudou waa salle bi yëpp maa leen di remercier. Euh, damay taxaw foofu xam naa bu ñu ñëwee ci combat bi Adama dina ma dugalool combat bi ndax combat bi moom defe naa ni man gaaw bi mu gaaw dong moom ci metti parce que yaakaar naa ni coow lu ni mu bëree di ngeen xeex di ngeen bëri mais da ngeen ñëw benn cong la def mu jeex man man man li ma jaaxal mooy booy Dakar gàtt na euh, caatu ngiwél njool abi sifle booy Dakar wàcc ba ci suuf mel ni kuy foo moom mu taxaw si gën a ma ne lii mësuma koo gis. waaw loolu yëpp maanaam tey jii nii gis nga lamb soo ko tarbiwul wallaahi soo duggee si biir géew arène doo si mun dara lamb dañ koy boo booy nii ñu saak di dem àll ba comme kaa góor mu wax léegi. nañ war dëkk yi dem lamb dem bëri ji ñun dañoo bari bëri bëri yow booy wax waxal sa wax bu neexal kaa Gourdin. non du non waxal parce que man xam na ne man ni ngeen non man ni ngeen koy defee nii man ni ngeen koy defee man maanaam tey jii xam nga la laalu bëgg a wax koo xam ne tëdd naa moom benn néeg bëri nañ demi final mu ne ma may ma ne ko ma la ma daan ko mais dafa dem compétir di compétir ay bët yi dëkk booy nañ génn def loolu man du yàgg dara damay gàddu sama saak dem àll ba booy loolu moo leen manqué mais toog fii nii Ndakaaru sanse ba naaj toog fii dem stade di buuxante. yooyu amul sens waaw yooyu amul sens. nañ dem dugg àll ba di gàddu saak. waaw lamb soo ko soo si nekkee da ngay fas sa jom. waaw di gàddu saak di dem compétir comme sa yeneen morom yi wallaahi azim soo taxawee si géew kenn du la jaaxal muy bombardier keneen ak keneen. ku ñëw da nga xam noo koy daane. tegal foofu sa loxo après ñëw ci combat bi xam naa Adama bu ma dellu see foofu rek mooy dugalal combat bi ñu seetaan ko ma ñëw ci ci ci ci ci ci Kaaw Gourdin Kaaw Gourdin sa digganteeg sa digganteeg euh, Thiat Daouda Fall. Mm-hmm. parce que combat bi bi nga ko jëlee defe naa dégg ngeen ba ba ba ba mu des final bi. Mm-hmm. tournoi bi yàqu. après ki nga mm-hmm. xamante ni mooy Jax. bi ni ni mu ko waxee sax nee dañ na ko ñaari xale dañoo ba ba mais tournoi bi dafa yàqu. Mm-hmm. moom xamul leen sax mu ci xaalis ba fay leen dégg naa ne moom keroog li ngeen li ngeen fayeeku moom mosu leen ko fayeeku xaalis bi bari na trop <laughs> ba tax na ngeen waajal ko ni ngeen ko war a waajalee. Mm-hmm. mais ñëpp dañ na woon moo la man mm-hmm. ñëpp dañ na woon amoo chance booy mën na xeex mën na bëre am na doole. maanaam lépp dañoo jëloon jox ko. même man bi ma dugg see ci bi làmb ji sax bi ma la xoolee. bu ma la waxul bu ma fenul rek nee naa nee naa kaaw moom tey booy bi da koy jàpp ak tax teg nee. waaw làmb noonu la de làmb moom. Mhm. day baaxoo loolu. loolu tam dañ ciy sant comme ni ma la ko waxee muy école de lutte Dalifort. Mhm. parce que lépp ñoom la foofu <laughs> non du ma tëdd fil de moom liggéey rek moo fa nekk parce que dañ fa nekkee nekk suñuy raxe ku ci mel ni caatu kayre mhm. kaaw si seen numéro deux xam nga caatu Dalifor ñoom Oli ñoom Valdo ñoom Antu Njaay yéen a ko ci dugal. non da daan incha allah. fooyoon ko teg. <laughs> liggéey rek. Ah, waaw baax na. <laughs> loolu la demee mais sant bu baax comme ni nga ko waxee. làmb la ba nga xamante ne wax dëgg yàlla man de awma ci benn dut te boo xoolee samay face à dama ko doon wax. ma ne man ma daan ko du surprise. te loolu laa gëmoon. dañ la ko déy wala. non non dama xam ne bokkuñu rek qualité yi bokkul. lan nga ko ëppalee. <laughs> bëre rek. <laughs> mais keroog woowuloo ko ci bëre keroog moom man man moom man xaw ma <laughs> mais est-ce nekkul da nga koo da koo yeew ba xam ne kii tey. bu mu ne ko puusal bu ma ko waxul puusal du puus ne xaaral ma duma ko. da nga cee gis loolu. non damay laajte. Ah, damay laaj ndax yow gis nga ci loolu. gis naa daal nga duma ko ba mu ba mu loolu moom gis naa nu mu doon ñëwee rek lañ ñëwee de wax dëgg yàlla ñun dem ñu doon ñëwee lañ ñëwee. xëy na sunu borom moo kàttanaa rek. jéego woo ko ci mystique. non non. nit ñi jox la favori ne da ngay da ngay wàcc lutte simple bi euh, am nga avantage ci ci bëre bi mii nga ñëw taxaw ba koo corriger xeex ak moom. waaw parce que dañ ko jàng dafa naagu parce que buñ ko bu fekkee dañuy wax dëgg rek Adama dina te combat ñu seetaan ko boo xoolee dafa naagu ci biir bëre bi. waaw ah, parce que xamuma parce que xamuma moo tax benn cër moom. xamuma moo tax dëgg yàlla bu ma xamoon. Hmm. bu ma xamoon. dina ma jox mais ngeen bokk benn ngeen bokk benn journée di bëre muy bëre. Mhm. te bàyyiwula xel ba ba seen combat taxaw mun laa bàyyi xel. man mi sax bàyyiwuma ko woon xel. lu tax parce que daa am 11 jours ma wax ko ma man képp ku ma ci bëre rek daa am ku may xool ci sa ginnaaw mais du yow ci ñoom ñett ñëpp nag. da ngay yankaaw di xool Boy Dakar. non pas Boy Dakar caat laa doon xool. caat nga doon xool man lii laa bëgg andi loxo <laughs> keneen ak kenn ku ci nekk na am na ku ma doon xool ci yow. Hmm. moo tax làmb ji daf ma jaraloon. bi ngay bëgg bi ngay bëgg caa ko doon xool. <laughs> sama doom day Sa Thiès. Sa Thiès nga doon seet. moom ci moom lañ fi lañ koy waxtaanee Sa Thiès moom xam nga ne xool la. sax dégg nga ma sama doom day Sa moom nga ci doon xool. Ah, parce que moom. yàlla mun na def ñu bëri ma ak moom quoi. kon sa xel nga ci moom nii. waaw bu baax saa yéen sama grand la sama waay la sama waay la dégg lu ma la sama gaayen la. sama waay la ah parce que ndaanaan la te de bërekat la. mais man damay pour bërekat nii. mais moo tax nga ñëw xeex ak moom. vite fait nga bu ko xeex. waaw xeex bi dama ciy sant Abdou. suma kër sa Abdou ñoom Kayre Junior seeni ñoom ñoo ma ne kaaw kii foog moom. da ngay xeex ak moom pour daan ko te loolu laa ñëw appliqué ci làmb ji mooy xeex ak moom daan ko parce que loolu loolu laa liggéey. moo la xawoon su tuuti man damay compétir ak ñu ma ëpp fuuf surtout ma côté bu nekk nag mais bor bi sifflé moom dinga nga pousse de te gourdin bi dalay dal. mais moom ka gourdin moom dal na ko. waaye gourdin bi dal ko bañ tabal ko <laughs> te ko acca. <laughs> am géejawaay da koo jege acca dàq bi loolu loolu lu muy tekki daan la ba noppi ne la acca ci biti <laughs> non innovation la woon rek ah. waaw innovation lu bees la woon rek te incha allah am na leen luy ñëwaat hmm. ah. mais boobaak léegi euh, nga bëgg moom daan ko ak manière que ñëpp am nañu leen bett waaw bëri na moom ba ci yow mii. waaw man kay nëbbu ma déglu naa waaw man kay man nëbbu ma ko man nee naa la man wax dëgg yàlla kaw ak moom suñ ma mayoon 500000 du ma ko teg ci yow ci ca caat daaw dafa laa koy teg. loolu moom a gën a nekk xale wala moom a pour doole wala moom a dàq bëre. en plus ak doomu mbër bi ak école de lutte ba mu nekk. non ak ni ma la gisee sax keroog nag ci biir làmb ji. Hmm. parce que man moom des fois mën naa teg micro bi dem di xool mbëy ki wax naa ko wax naa ko sànq nee naa ko bi ma nee naa ko caatu ngéwél mi ma gis nii wax dëgg yàlla nii de laa ko def moom wax dëgg yàlla moom mi wax naa ko ko sànq. Euh, ah kon yow som som ci man dalaa dalaa nax quoi. waaw daf maa nax moom. waaw mais mais noonu la xëy na sunu borom moo ko dogalee woon noonu rek. waaw mais caat moom wax dëgg yàlla. ku yaru la parce que mm, mm. sekk nañ plateau yu bari mais amul benn débordé quoi mm. wax dëgg yàlla ku baax la ku yaru la xam nga ba ci làmb ji lu dul mu romb ma romb amul leneen wax dëgg yàlla moom tamit dañ ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm rek quoi yee ku baax la ku yarul te làmb mu ngi ci kanamam quoi nga am ci ndam boobaa ak léegi yaa ngi toog di entraîner foo teg sa bët waaw fi ma teg sama bët mooy sunu grand yi may ñu chance yee ku ci mel ni nu mu tudd tonnerre nañu may chance Tonnerre nañu may chance Santa nañu may chance. Tonnerre gis nga ni def laay laay laay laay laay nan laay Pythagore de. laay waaw waaw. xale la daan de. waaw mais qu'importe ñun ay xale yi nga xamante ne ci biir xale yi lañ te tamit dañuy def li ñu war a def ci làmb. léegi daal bu ñu amee deux victoires rek da ngeen ñaan chance xool mag ñi daal ne xaaral ma génne leen. parce que suñuy morom dañ fee bari mënuñoo jeexal suñuy moroom tey jii booy dakaar même bu mu bëggee bëreeg moom. Mm-hmm. moom mun na xoolu feneen séentu feneen parce que yàgg yàgg yàgg yàgg dañuy bëre ji mais buggee man moom buggee ma ko fi soxlaa goo ko déedéet parce que booy Dakar ak Kaa Gourdin loolu du. bu lamb garaaw la parce que qualité moo nekk ci moom dafa mën a bëre. Mm-hmm. te man dama ci sawar damay sawar ki nga xamante ne mën na bëre waaw dama cee sawar torop gis naa benn boyka mu daan la fee ci tournoi yi. Mhm. demi final xaw ma genre demi. waaw defe naa ne bëgg na la trop. xaw ma dégg mooy boy bi waaw. waaw kooku Mbappar moo ma booleeg mhm. na mbër yi ne Mbappar moo leen di boole mais du arène. naa kay fu mu ne jox leen ma man boobu laa ko gis. man boobu laa ko gëj ah, gis. ah moo ngi wàcc moo ngi wàcc la ma laax. man de mbër benn yoon la may war. benn yoon. la mu mbër di war. wala caméra bi. nu mu tudd. <laughs> tur bi laa xamul booy Zil. Hmm. benn yoon nga may war te xam naa ni duñ gaaw dajawaat ci làmb. foo ko teg dama ko xam rek. Hmm. waaw lu leer nag laa la wax Ouzin. ñoom nekk sa kanam. waaw ñu nekk sama kanam wax naa la ko parce que dafa toll fi nga xamante ne dafa daadu ñu bëri ñi nga xamante ne tey jii. géej waay ma yaakaar ne des nga fay adversaire. non bari na géej waay ñu fa desal bari mais Alioune Seye Junior dafa daan sama grand moo tax ma bëgg a bëri moom. te boobu muy maa ngi nekk booy mu daan sama benn grand bu ñu naan ji fay David Khayen loolu moo tax ma bëgg a bëre moom wax dëgg yàlla dafa daan sama grand te boobu maa nekk booy mu métti ma trop moo tax ma bëgg a bëre ak moom. ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ne tey jii même même bu dul ñooñ sax lamb bu mu buñ ma booleeg moom barki yonent bi damay bëri est-ce que rek laa xam maa ngi sama métier mais làmb laa bëgg. parce que ci laa bëgg teral ñi nga xamante ne ñoo ma yaakaar. ñoo rawatina samay xarit samay xarit bàyyiwuñ ma benn côté quoi dañ may jàppale dañ may jàppale bu baax xooluñu defet xooluñu dara ñoom lam la lañ gëm mooy kaaw entraîneur loolu rek lañ gëm rawatina suñu père Tombe Sène rawatina suñu père muy moom amul leneen lu dul ñun ñun rek la mm-hmm. tamit nañu promoteur yi seet si xam nga. tamit ak ay avance yu baax ko nañu promoteur yi seet si ak ay avance yu baax. Ah. làmb moom defe naa ne dafa laaj xaalis te promoteur yi war nañ ñëw ci yéen mais su ma ñëwee ci combat bi. lan moo tax bi nga ñëwee nga bëgg kutoo kut rek def benn congu làmb ji jeex nanguwuloo xeex ak moom ak làmb yi li muy am coow ak lu coow li bari bari yëpp nga bëgg a ñëw def benn songu làmb ji jeex. nga suñu dafa mel ni dafa mel ni euh, congu bi da koo téléphoné. téléphoné wu ko de. non ku la gis ni nga wàccee dina xam ne boo Dakar dafa bëgg a dem. waaw parce que tam maa ko njëkk dóor de. maa ko njëkk moom deful dara ci làmb maako njëkk dóor moom moo ñëw ma jàpp ko daan ko. non ñëw wala da daw jëli ko. dafa ñëw dama ko dóor góos mu daw ñëw di fay mu dóor mu fii ñaari euh, suma ma jum droit taxaw ma góos daal. kon jot ngaa ñam. waaw fii si jël léegi nag bu muy accéléré waat di ñëw ma jël ko mu jeex. làmb ji la noonu la demee mu jeex làmb dafa yomb. waaw dafa yomb man maa ko mën du ma moromam wallaahi du question dara de wala nekk fi di li sama. mais lu tax moom tuuti sax. non no kii du ma moromam. non non jarul xeex. man maa ko mën. ba pare nag keroog damaa gis keroog bi ngay ñëw. Euh, ñëpp dañoo topp dafa doy waar. waaw dafa doy waar trop trop di si remercier ku si mel ni ambassade France maa koy remercier bu baax a baax a baax parce que moo tax booy dugg stade du remercier suñu président staff muy Aydara moom tam jël na xaalis bu bëri def ko si ay ñoom Matar ku nekk participer pour boo booy mun a dugg stade ñu Modou Sagna gaa yëpp ku nekk ku yor dërëm rek ñooy ñëw def ko si pour booy mun a dem stade boo yu bëri dañ leen a jàppale pour ñu dugg stade loolu moo tax te Grand Dakar tamit xam nga man lañ fa dese presque. Mm-hmm. ak sama grand frère Thiat waaw kon nag il foog ñu teg ñu loxo bu baax a baax. suma yaay Ndeye Saly Diop Dieng ministre de la femme de la famille du genre et protection des enfants moom bu baax sama papa Djibril Wade tamit jàpp na ci maa ngi koy félicité encore si élection hmm. euh, di ko encouragé tamit di ko wax ne. koo voteel. ah koo voteel. ma voteel. waaw oh. non jarul ma koy wax fii. daal mu sedd. <laughs> mbaa ki nga voteel moo gagné. ah moo gagné waaw. moo gagné <laughs> wax nga ki nga voté. <laughs> non non non ah. mais man dama am dama am lii boo xamante maanaam day sali Diop Dieng. Mm-hmm. maa ngi maa ngi si liyam bi APR sama papa Jibril Wade tamit depuis ma nekk xale moom ma yar. kooku mu nekk. mu ngi ah, mu ngi PDS. yow da ngay bañ ko la mere donc. <laughs> non xam nga man voté naa nag. Mm-hmm. voté naa mais APR instant bi nii moom laa gën a lii nii. sama yaay ndi Sala Diop Dieng avant mu nekk ministre laa doon ànd ak moom loolu moo tax mais xam nga man la dénk wàllu sécurité yi affaire yooyu yëpp loolu moo tax. mais sama papa Jibril Wade tamit sama papa la kenn mënu ko dindi suñu président NGV bi la yëpp équipe bi. ñun tam mu ngi koy ñu ngi koy remercier di encourager tamit suñu ministre bi jëkkëram Papa Dieng. Hmm. ñu ngi koy encourager fële sa PKS moom tam dafa ñàkk foofu ñu ngi koy encourager ñu affaire bi daal nii la. waaw gars daal ku ñu choisir nañ fexe nag duñ ko choisir mu def loolu noonu waaw affaire daal noonu la demee. Hmm. Hmm. mais bi nga jógee ci làmb jeeg léegi. promoteur yi ñoo ngi lay waaw man de yaakaar naa ne damay pare si combat avant may ñibbi. si stade bi avant may ñibbi gars yi dañu woo sama ménager sama euh, di wax ak moom. waaw parce que man yàlla dafa def amateur dañ ma bëgg. Hmm. di soxla sama combat. moo tax balaa may ñibbi rek père na ma woo mu ne ma ah diw de woo na ma nee ma lii ak lii ak lii. kan la ñu bi mu la woowee. non non ma koy wax. non ma xam nga loolu sama diggante ma père la. léegi après mu expliqué ma ma ne ko waaw. après yaay kii naan déedéet. non kii même su waxul <laughs> même su waxul déedéet. man <laughs> même su waxul sax man du ma wax. parce que loolu yaakaar naa ay secret yoo xam ne. mais ñi wax da leen bëggul. wala boog am na ñu ma ci bëgg am na ñoo xamante ne bëgguma ci sànq rek am na ku ma woo di ma wax adversaire ma ne ko jëlu ko parce que xaw ma ko miinu ma ko waaw. sànq rek ma ñëw foofu ma lay xaar noonu woo nañ ma téléphone. Uh-huh. wallaahi mais dañuy sant yàlla rek man mosuma toog promoteur woote wu depuis mu commencé bëri te benn yoon la mu sëy ñu ñaa tëggal jusqu'à présent gars yi ñooy woote waaw parce que man duma ma wane ñàkk fu la si géew wala ñàkk fayda su ma ñëwee damay def lu may def. ba yàlla def mais boo daanee li ngay def noonu loolu nu mu damay foo bu ma nekkee xale laa ko taamu quoi. da nga mës a jàng karaté wala kung fu wala. bu ma nekkee xale laa ko taamu. non waxuma loolu film yi comme film yi ñu tegoon nga ñëwee da nga ne jàppal kan nga. affaire yi man loolu dama ko bëgg quoi. mais ko mosoo ko pratiqué. non mosuma def dara damay foo rek. kon yow da ngaa waane yàpp nit ñi <laughs> boo daanee fu ne nga sànni ba tànk sànni ba loxo booy Dakar. non defuma dara mais bu bu bu bu ñu comme gannaaw ñu ngi lay proposé ay ay combat mm. euh, bëggoo ñooñu ñan ñoo nekk sa kanam parce que sànq dégg naa nga limal ma bi Tidiane Faye. Tidiane ay say junior ondu la fu ondu la fu sax mooy loolu parce que dafa bëri wax tëggoon nañ fi suñu combat mu ne jox mu jox nañ ma avance encore moom tam mu wax loolu noonu mu jox nañ ma avance ma delloo avance. mais nag mënuñ laal mënuñ la mënuñ la topp di la wax jox ma la avance kenn jox la avance. Dakar. bi ñaari yoon nga wax ko barki Serigne Babacar si lu ma wax moo am. wallahi azim. mais tam dañ ko jox sa manager te doo ko yëg. non non sama manager du laal xaalis sama manager balaa muy signé combat CNG lay dem CNG lay récupéré xaalis te laakaar naa ne xaalis balaa muy génn foofu il faut ñu signé ko. mais nag sa ji Tidiane Faye lamb du ko dàq. waaw lamb du ko dàq parce que suñu grand frère waaw parce que tamit dañ ko doon seetaan ba nu mu def Jaguar. loolu yëpp hmm. après xam nga dañuy dem sax écrit di ko foowee kon nag tey suñu demee bay bëri genre dañ ciy sawar di ko laaj su suñu mënee may sens mu may ñu sens. waxal ci Tidiane Faye Tidiane Faye may ñu sens. waaw ñu bëreeg yow làmb du ko dàq. waaw. ñoo war a bëri Aliou Seye ñoo ñëpp dañu ruux sax ñu ngi doon dox combat mais sànq lañ ma woo ñu ne ma. Aliou Seye Aliou Seye 2 wala Aliou Seye Junior. Junior maa ko gën a bëgg. waaw dama <laughs> bàyyi <laughs> naa kaa laaj ama moom sax mu koy laaj mais. lu si lu bu si taxaw rek baax na quoi. comme que kii moom ñëpp bëgg ngeen Alioune Seye Alioune Seye <laughs> comme que kii moom dafa bëgg a feelu grand frère. tool yi li may wax rek dañuy ni bañ mais yéen ñaar combat du ko xam nga. non instant bi nii combat tool yéen a bokk yenn adversaire yi bëgg moom boo ko joxoon Tidiane Faye mu jël. waaw boo ko joxoon Tidiane Faye nga jël jox Alioune Seye nga jël. <laughs> voilà <laughs> yow ku la jox Tidiane Faye Alioune Seye boo ci am baax. waaw parce que ñun tey jii nii maa moom ay morom lañ. Mm-hmm. su ma ko magul maguma. Mm-hmm. comprendre nga il faut ñu bëri suñu grand frère yi ñoom Zos gars yëpp dañoo war a ñëw bëri ñun non Zos moom. billaay wallaay Zos. Zos nañu bëri man non Zos sama waay Zos dama ko yërëm Zos dama bëgg mu bëriwaat ba kanam. Zos am na kan lay waaw Zos keneen kan lay bëreel fii. xaw ma waaye. waaw ah. Zos ñun la fi mën a may chance. waaw nañu may chance. mais Zos day soos soosaat de. ñu nay xale lañ de dañoo am doole. booy booy Dakar am na lu muy def man am naa lu muy def. kenn ku ci ne am na. yow. waaw yow <laughs> kuy laaj kuy laaj tonnerre nga xam ne boo ko joxee Zos mu jël. voilà. sos nag xam naane ne moom boobu sos. wala yow da ngaa bëgg ma laaj xale yi. waaw mais loolu nag c'est comme. te man xam naa am na sa xel fu mu nekk de. <laughs> ah. <laughs> fi sama xel nekk bala sa nekk gannaaw nangu ma ko tëgg ma maa <laughs> laa fa. non nongolo mënu ma parce que ëpp ma hmm. ëpp ma ëpp ma victoire. Hmm. mun laa dépassé moom. maa ko gën a néewee defet tamit mais dañoo waroon tàggalikoo bu yàgg maa ak te fi mu toll nii gannaaw tàggalikoo leen ku leen jox xam naa ne sax combat bi nag moom li des sax bàyyeetul. man de bu ma buñ buñ ma woon tay tay tay tay tay ma jël ko. kooku damaa bëgg mu kalaase. mais Ndongo Lo dem na doole gis nga ko ak maas gis nga ko bi ñëwee léegi. <laughs> booy Dakar boo ko xamee ba léegi lii la de te mu ngi jaaxal ñu bari. <laughs> non Ndongo Lo laa moo wax ak booy Dakar. moom laa la wax affaire du question foofu quoi. Ouzin lu ñu gëm nii nii nii xam na ne mun nañ bëre keneen ku bokkut ak Ndongo Lo. yoon sax moo toog di ko laaj. moom mais mais mais Ndongo Lo nag. mais quoi qu'on peut dire ndaanaan la. non weesu na loolu. waaw moo tax ma bëgg bëreeg moom. mais dama xam ne maam moom dox nañ sama combat maa moom du benn yoon du ñaar. te dañoo war a làmb daaku ko. promoteur yaa ngi ñuy ci jàmmaarloo Ndongo Lo euh, Kaw naa ne làmb ko dàq diggante Dalifort ak Parcelles. Euh, bu ko tëggee nag xam naa ay ñoom jaag dinañ ci jàpp bu sama papa la kooku sama papa te moom moom moo gën a bëgg combat bi sax. Hmm. <laughs> waaw ak waa gesu xam-xamu làmb ku ci mel ni xam nga jéey ak waaw mafia ak laalaake bi waaw ñooñu dañoo soxla hmm. bi ñoom dañ koo soxla. gis ngeen noonu la demee soo amoon kàddu yu mujj lan lay doon nga woowaale gars yi waxaale ma nag li ma adversaire yi. moom naa ko vocal adversaire doo ko vocal fi bàyyi ko mu jàll. gars yi cons ko. <laughs> di remercier tamit euh, suñu papa Jean Baptiste Diouf. Hmm. di ko féliciter encore moom tamit fële ca Grand Dakar ah. wool ma caat nag caat ne ko. waaw damaa bëgg mu ñëw fii. Hmm. sànq ñu ngi doon waxtaan téléphone euh, kii WhatsApp. caat après dina fi ñëw incha allah. loolu moom maag moom ñoo fi ànd incha allah. parce que dafa mel ni am na benn coow bu jot am am na lu ma ci dox tuuti. Mhm. mais dama leen bëgg a woo fii ñoom ñaar. ñoom ñaar waaw. am problème loolu moom su ñëpp rek moo jon waaw su ñëpp see rek man moom danañ fi. incha allah ak Aïdara Aïdara Mbacke Niass. incha allah waaw di remercier tamit euh, ku mel ni Ilimane bu nekk Italie. Hmm. waaw maa ngi koy remercier bu baax a baax jaara tamit maa ngi koy remercier bu baax a baax. sam bàjjen numu sam bàjjen euh, sam papa Cheikh na maa ngi koy remercier ñoom Bala Sangare ñoom day Sangare waaw bàyyiwuma leen benn yoon képp ko xamante mu diaspora ba rek ñoom Abdou bàyyiwuma leen waa Brésil bàyyiwuma leen ñoom Mame Ngor Sama ñoom Sa ñoom Sang waaw bàyyiwuma leen benn yoon di leen remercier jàpp nañ si combat bi baax a baax a baax waa ñaartali aw ma seen fay waa Kaolack Kër ma jëbel Pane Sader Lamram ji laxaar Karomar Bambar Karomar Për Thiamène euh, Dagga Koutal maa leen di remercier bu baax a baax a baax di remercier caméraman borom Koutal <laughs> waaw di remercier tam sama pap Bouba Kawil waa Sancu Baba Sancu Amad Fall Jawara alkaali waaw bàyyiwuma leen benn yoon waaw di remercier gars yëpp mafia ala cadar bi mafia soble bu ñorol bi sama rakk yëpp maa leen di bëgg sama famille aw ma seen fay waaw di remercier tamit Aïdara Mbacké Niass di remercier tamit Matar waa Waalo jokkul gànket bàyyiwuma leen benn yoon waaw di di di di remercier gars yëpp waaw di remercier tamit ñoom jaana euh, ba Dakar ala cadar bi yëpp bàyyiwuma leen waaw waaw mafia sans loi tamit maa leen di bëggee bu baax a baax a baax. ma seen fay daal. waaw di waa tamit maa leen di bëggee. Mhm. di remercier tamit ñëpp ñu teew si plateau fii. gis euh, ñu bàyyi la kon nga tàggatoo. waaw Ousseyn waaw santaat yàlla bu baax di julliwaat ci yonent bi bu baax a baax di santaat suñuy waajur bu baax di santaat suñu sëriñ sëñ Abdou Si bu ma Abdou Aziz Si Dabaax di sant nag waa Dalifor fooraay bi mhm. di ziar ñëpp wax dëgg yàlla di gis taxawaay bi nga xamante ne taxaw nañ ko ci élection bi xam nga ku ci mel ni sunu sunu mosala maire muy Baye Diop ñoo ngi koy féliciter di encourager tamit ñeneen ñu ci nekkoon ñëpp ah di leen encourager bu baax di xam na ni ñun dalifoor dong moo ñu ñor. Mm-hmm. waaw képp ku mënti gagner tamit na xam ni Dalifort moo ñu ñor quoi te Baye Diop moom la a def mu nekk ci maire bi ñoo ngi koy encourager bu baax di nuyu tamit sunu député muy Awaña di nuyu Ségéré muy sunu grand bu baax. grand Serif tamit ñu ngi koy siyaar bu baax a baax a baax ñoom Lamine kan xam nga ñëpp képp ki nga xamante ne dëkk na dalifoor ñu ngi koy siyaar bu baax a baax di siyaar ñëpp nag bàyyiwuñu kenn rawatina mafia bi kalamanaas bi ñu ngi leen di bëggee waa aree Ndula ñu ngi leen di bëggee waa Mbartal ma saala saala yi du ma leen fàtte waa Njaga family amuñ seen fayan ah, ñu ngi leen di bëggee di siyaar tamit ñi nga xamante ne wa ñooy waa Kaarang ñu ngi leen di bëggee mm. waa Passy waa Amdalaay ñu ngi leen di bëggee waa Kaolack ñu ngi leen di bëggee bu baax waa Njaay Njaay Fatick amuñ seen fay waa Ngoy Alioune sal amuñ seen fay waa Jaxaaw tamit ñoo ngi leen di béggee bu baax di leen ziar waa Ngumba Ngeewul waa Louga waa Màkk Baraay waa Kel xam nga ñoo ngi leen di béggee baax waa Tiawoon Pire xam nga amuñ seen fay rawatina ñi nga xamante ne ñoo dëkk Sakal tamit ñoo ngi leen di béggee bu baax di leen ziar di leen béggee waa Kees amuñ seen fay pour cinquante xam nga foofu yëpp am nañ fay soppe waa Kër Massar xam nga waa Pikine parcelle xam nga bàyyiwuñu fenn rawatina nag waa Sandaga maa ngi leen di béyee bu baax sama gaay yi fa nekk waa Medina xam nga gaay yi fa nekk yëpp ñu ngi leen di ziar waa lu làmb tamit aw ma seen fay ku ci mel ni Cheikh xam nga maa ngi koy béyee. grand xaadim grand Chass ñoo ngi koy béyee waa diaspora bi tamit amuñ seen fay ñoo ngi leen di béyee bu baax ñoom koso ji fay xam nga sama grand daa xam nga ñoo ngi koy béyee ak sama jigéen Aida ak astu depuis fële waay États-Unis ñu ngi koy béggee bu baax a baax ak diaspora bi yëpp gaa yëpp maa ngi leen di ziar di leen béggee di wax ne xam nga saison bi jeexagul ñu ngi ci saison bi ba kon waaw na affaire yi gina bar rek ñu nekk ci di béggee booy dakaar di béggee Ouzin ñu ngi lay béggee bu baax di ñaanal gaa yi fi nekk yëpp jàmm ah. di ziar mafia bi nag fàttewu ma leen muy kalamanaas bi mhm. amuñu leen lu dul ñoom xam nga maa ngi leen di béggee bu baax waa gëstu xam-xamu làmb tamit fàttewuñ leen bu baax a baax Père maa ngi lay bégee bu baax a baax a baax a baax Diop la maire xam nga mafia xam nga roof tàngoor bi tamit fàttewu ma leen ah depuis géejawaay xam nga maa ngi leen di bégee bu baax di leen siyaar di bégee bu baax Ouzin di am contentement bu baax a baax ci plateau bi ah. kontaan naa ci yow bu a baax waaw waa Kastoor maa leen di remercier tamit waa Ruxu Ganaar. Mhm. waaw ku si mel ni Moussa Sarr. waaw bu ganaar ba am naa fa am naa fa père de xaw <laughs> am naa fa sama benn paa waaw Baye Modou maa ngi lay ziar Baye Modou ginaar maa ngi koy ziar waa ruq ganaaral bàyyiwuma leen ñoom ñëpp ñoom Bada ñoom Moussa Sarr ñoom Baye Fall waaw ak waa ruq ganaar terrain ngelaw tamit marché ngelaw di mees maa leen remercier ku see mel ni Moussa waaw mafia bi foofu yëpp waa mafia Dóoru ñoom Aba euh, ñoom kii nii Babacar Dadi ñoom Malick kenn symbole waaw maa ngi remercier tamit euh, buur buur daf may sargal le vingt neuf. Hmm. waaw di woo ñëpp. sargal boobu boo ma invité ñëw gis naa ko de. <laughs> <laughs> waaw di invité ñëpp daal di ñëw. xam nga invité ko. waaw invité naa ko loolu du problème. Ah. loolu du problème invité naa la euh, kii Kaw Gourdin. incha allah xam nga di remercier ñëpp. di remercier Abakara. Hmm. Abakara borom tableau borom décor yu naa si Abakara képp koo xamante ne bëgg na jot Abakara rek waaw na ma contacter ma jox ko numéro incha allah rabbi xam nga day def décor bëggee mu décor leen fii affaire bi gën a nice ah, waaw moom yaam am gën a xam daal waaw di remercier ñëpp daal ay bàyyiwuma kenn waaw marxaban soog tamit ñu ngi koy béggee ah muy sama grand Baboya Baboya ñaa nekk faak ak euh, Bokar ñu ngi koy béggee bu baax xam nga fépp fu may plateau bépp bu ma jëm rek moo may woo ci bikitam xam nga defal ma waaw yaa ma gën a xam ah, di ziar sama grand muy race création muy sama patron mm-hmm. waaw maa ngi koy béggee bu baax moom laa nekkal ci sama liggéey rawatina sama papa Diak moom la mm-hmm. maa ngi koy béggee bu baax a baax Assane Seck sama grand waaw bu mag bi kenn moom maa ngi koy béggee bu baax a baax a baax gis ngeen noonu lay demee ci jàmmaarloo di nuyu ki nga xamante ni moom la wax léegi muy Diak Jack nekk xale boo xamante ni parcelle la nekk waaye defe naa ne am na ambition am na loo xamante ni gëm na ko defe naa ni moo ngi bay waa bu baax baax ñu koy ñaanal li ci kanamam dàq fuuf fuuf fuuf fuuf nag maa ngi nuyu ki nga xamante mooy président Lat Diop di la wax ne nag àdduna noonu la ndax defe naa ni politique moom defe naa ni boo ci duggee defar moo la tax a jóg euh, da la ñaanal nga gën a góorgóorlu keroog maa ngi koy dégg bi élection yi jàllee ci lënd bi nee na lépp loo xamante ne malgré nag gagné nañ ko mais nee na lépp loo xamante ne digg woon na ko bi Parcelles ak bii Golf Sud dina ko def dina yeggali bébétam di ko wax nag na góorgóorlu bu baax a baax maa ngi nuyu Aziz ca Colobane Aziz business compagnie naka lañ ko waxee waaye yeggali ma ko Aziz business compagnie nan la a a lan xamoo waaw sa affaire la Aziz ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax di ko wax ne xale la am na loo xamante ni gëm na ko ñu koy ñaanal moo ngi foofu ca Colobane di ko ñaana lépp loo xamante ni bëgg na ko rek ci liggéeyam yàlla defal ko ko di leen jox dig daje kontaan ci yéen caméra yi cameraman yi bu baax a baax ndax fu ma bëgg rek ngeen yow ta kiiwu ma la gërëm ma ah dafa naa ci yow Khalil maa ngi lay bégg bu baax a baax di leen jox dig daje beneen yoon jàmmaarloo ak yeneen mbër jaa ngeen jëf